mbokku déglukatu réew mi FM dal leen ak jàmm seen émission sans filtre euh, muy jotaay ndaw ñi fii ci réew mi FM lay am euh, mercredi bu jot 15h euh, jàpp 16h tey ñu am mbégte contenté dalal ma Guèye moo di président du mouvement génération originale moo teewe fii ñu fas yéene waxtaan jafe-jafe yi nga xam ne askan bu Parcelles Assainies ñu ngi koy dund jamono ji ku leen ko yóbbu moo di seen maire Moussa Sy daanañ si ñëw waaye laata ma koy jox kàddu gi Modou déglu déglukat yi. maa ngi lay nuyu Sylvie di nuyu suñu ay euh, auditeurs ak auditrices yi ak téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci YouTube bi. Euh, Tamor Fall yore ko di nuyu Adama mi nga xam ne moo nekk ci technique bi waaye di nuyu suñu gan gi di ko dalal jàmm. Euh, di wax ni émission bi dooratina muy heure bu mag bi fii ci Rewmi FM Dakar 97.5 mooy fréquence bi nga xam ne fi nga ñu mën a jotee yow mi topp émission bi bëgg cee bokk mën nga woote ci 88 628 84 84 plus 1 wala nga woote ci 88 628 85 85 plus 1 mbaa nga jot ñu ci 88 628 86 86 plus 1 yow mi nekk bitim réew tey topp émission bi mën nga ñu woo ci 33 841 21 40 boo ko defee da bokk ci débat bi Sylvie ma delloo kaddu gi ci mhm. kanam. Euh, merci beaucoup euh, Modou comme ni ma ko waxee sànq Mamadou Guèye moo fi toog moo di président euh, mouvement génération originale euh, Mamadou Guèye ñu ngi lay gërëm di la sant ci sa teewaay fii ci suñu émission euh, sans filtre ma bàyyi la nga nuyoon teeg mbokku déglukatu Rewmi FM ñu ngi leen di nuyu di leen kontaane ci invitation bi di la nuyu Sylvie di nuyu Modou Fall mais di nuyu aussi l'ensemble des de l'équipe de Rewmi FM merci beaucoup mhm. Euh, yow yaay président mouvement génération originale euh, ñu gis ni seen maire euh, ay fan ci ginnaaw am na benn rajo bu ko invité waaye mujjul àgg ndax ndaw ñi dañ koo daw dañ koo dab jiitu ko fa pour empêcher ko mu dugg euh, te pourtant man ay at ci ginnaaw euh, man musaa si jàppoon naa ni euh, bokk na ci maire yi nga xam ne ñoom li leen tax a jug moo di jafe-jafe askan wi te dégg naa ay ndaw yu jugee parcelle ñu jàpp ni ñoom aussi monsieur le maire mi ngi leen di jàppale bu baax lan moo xew ci diggante bi man buggoon naa xam lan moo changé ba tey ndaw ñi dem di ko jiitu ci ab rajo bañ mu dugg fa pour mu wax lan moo changé ci diggante bi. Euh, Parcelles Assainies gi yëpp boo ko xoolee dafay souffrir ah y a que des mots aux Parcelles Assainies ndaw yi ngay wax si yi ça fait des années amatuñu fu ñu exprimer wu aussi bien ci sport bi ci culturel bi mais aussi si domaine boo jël daal parcelle dafa am ay jafe-jafe yu metti mm-hmm. li taxoon nag vraiment mouvement boobu muy euh, Moussa Sy doy na Free Parcelles juddu parce que suñu maire ak situation ni àddina mel ni Sénégal mel rawatina parcelle su toogee di xalaat dafay jël plus de cent et quelques millions di ko def ay congrès te urgence yi nekk feneen te ñëpp xam nañ ne aussi parcelle ba tey ji ñuy waxee yow parcelle dafay souffrir si domaine yëpp boo jëlee tey ñëpp ngi tiit ak nawet bi di ñëw parcelle treize point bas fii ñu nekk fi ñu toll nii am na kër yoo xam ne am na yoon yoo xam ne am na infrastructure yoo xam ne tey ndox mi da ko nangu démb rek waa unité 8 ñu ngi génnoon di def marche di xeex parce que aussi bien seen poste de santé bi que seen jumaa ji kenn mënu fa accéder. Mm-hmm. parce que parcelle ñëpp xam ne treize points bas la donc parcelle dafa nekk ci ay jafe-jafe yu métti yoo xam ne tey boo xoolee Parcelles Assainies on le centre de santé hôpital Abdou nga xam ne amul radiographie amul scanner morgue bi amul clim. tey boo xoolee aussi maternité bi jigéen bu war a mucc ñu ne la dal lay yóbbu hôpital ma ay jooy nga fay nga fay amee ñu bëri faatu nañ ci parce que foofu amul bloc opératoire te bu lay jéem a yóbbu transféré à l'époque qu'est-ce qu'on avait ay taxi fa doon gaare ay clando mhm. amul ambulance donc jafe-jafe yu bëri ci parcelle ci domaine yëpp stade bangoogu fekk na fi stade mu toj ko ne def stade u mille cinq cent places ba tey ji parcelle amul stade pour ñu football il faut ñu génn wàllu yaan yi boo jëlee wàllu spectacle amoo fooy defee spectacle donc domaine yooyu jël avant maire bi di ñëw fekkoon na fi vraiment ay infrastructure yoo xam ne doomu parcelle ah askanu parcelle mu ngi ci doon jariñu hmm. soo xoolee tey amoon nañ rajo municipal nga xam ne yéen seen naataango yu bari nekk tey ci télé yu mag yi fa leen leen formé ah rajo yi bi mu di ko tëj soo xoolee collège municipal nga xam ne néew du doole yi fa lañ doon jàngee 30 000 nga doon fay ci année bi et on avait d' excellents résultats au ba mu ñëw pour des raisons politiques tëj na ko. Mhm. centre socioculturel bi nga xam ne au moins complexe la woon lépp amoon foofu. centre moo nekkoon wetu église nga xam ne yu bëri fa lañ ko doon defee boobu tamit boo demee ay grava la mu tojoon ko bëgg ko jox Auchan aussi bien le conseil municipal ñenn ci ñoom mais aussi march am marchand yi ñëpp xeex pour loolu bañ a am. Mhm. donc parcelle lépp lépp lépp maire bi fa ne yàq na ko. Mhm. donc suñu toogee ci loolu. jóge aussi ci pandémie bu métti mu am ay urgence yoo xam ne ay urgence vitale la nga jaw am courage ne da ngay génn alal ju mel noonu pour trois jours te léegi la yëkkati rek du dara lu dul mooy euh, nax Macky Sall pour que tey ji mu jiital la comme il la l'habitude de le faire on a dit non hmm. tey dafa soxla leneen lu dul ay congrès parcelle dafa soxla leneen lu dul dem luye grand théâtre jële askan wi fu ne nga jële nit ñi ba bitim réew hmm. Banjul fu ne pour lan pour feesal grand théâtre président Macky kat man kat may Moussa Sy na ma meloon laa mel or du nit parcelle donc loolu la mhm. jëlaat beneen caravane boo xam ne ñëpp gis nañ caravane bi il a fallu que force publique ñëw lu ñu mësul gis parcelle ba mu nekkee parcelle ba léegi ay blindé ay char ay blindé yoo xam ne pour sotti ndox mu tàngala nit ñi plus de ñaata gémi tey wàcce nañ leen parcelle ci koñ yee fépp ay nervi yoo xam ne gis nañ ko bare nañ lool pour que moom mu mën a def caravane wax a askanam. Mhm. donc y' a un problème qui est là. Mhm. yow yaa ngi ca mairie ba euh, conseiller mhm. nga fa. effectivement noo gisee gestion mairie bi am na transparence pas du tout et eh, mais wax naa ko je crois que jamono yële defoon naa conférence de presse bu rëy. boo xam ne j'ai pris sama courage à deux mais où j'ai sorti de relevés bancaires wan ne vraiment maire bi fi ne ngeen baal ma ci kàddu gi noonu laa ko woon yi ñu jaaxle ab sàcc la le maire qu'on a à dilapidé dafa sàcc alalu parcelle doon ko jaaral ci ay mécanisme yoo xam ne dama ko génne démontrer ko devant tous les le public qui était donc muy ay relevé bancaire yu ma génnee wane nii nii voté mbir mi xaalis bi ni ñu koy voté bu jotee aussi na mu koy génnee ak fa mu koy jaarale ba pare ñu indil ko ko mu def ci la ko neex donc loolu lépp démontré xam nga tey jii bu ñu toogee ba taxaw Sénégal monde bi di ñu déglu ñu ne maire bi ñu yor ab sàcc la génn preuve yi nga xam ne la situation est extrêmement difficile ba tey jii. Mhm. du porter plainte ba tey jii du ci wax. même fa mu ko doon jaaree association boobu dañ ne woon dañuy def conférence dañuy porter plainte ba tey jii déggoo leen. cest di que ñun dafa toll foo xam ne tey dañuy xeex pour parcelle soppeeku parce que dans dix ans dans vingt ans lii bu continuer dinañ sacrifier sunu doom yi daal. Mhm. Euh, c'est vrai ñu ngi koy ñu Moussa si mais euh, peut-être daan na def peut-être la mu daan def moo euh, demeetul noonu lan nga jàpp ni concrètement moo tax tey ba ndaw ñi mere ko lool lool lool. mais parce que ndaw yi dañu gisasul seen bopp ci ci ci ci lii fi xew lii xew parcelle sa fait xam nga man bu nee mu ngi liggéey moi je list mu ngi liggéey nan ma wax ne lii moo ko fi def xam nga tey jii dama ne la 14 ans nga nekk maire yor signature te benn réalisation mënoo taxaw ne man maa réaliser lii. du loo inauguré à part peut-être ñaar ñetti salle de classe yoo xam ne daf na ko HLM Grand Médine à part ça amoo lenn loo xam ne ne man maa ko def mais commune yi boo demee tey mais commune yaa ngi nay ñu ngi am pavage commune yi boo demee tey xale yi am nañ ay salle des fêtes jigéen ñi am nañ ay maison des femmes am na ay infirmiers mu nga fa ñu ngi développer un peu seen plateau médical et cetera mais parcelle on a absolument rien du tout alors qu'on a le deuxième meilleur budget à part plateau man mii di wax yow maay vice président commission finance affaires économiques et ki mu def président parce que comme damay jàmmaaloo moom kooku daawul toog Sénégal parce que mu ngi ci football bi. Mhm. donc man je me suis retrouvé di jouer tout le temps le rôle de président de la commission finance et affaires économiques. Mhm. donc di saytu budget bi di jiite intercommission yi donc xam naa bu baax li may wax. maintenant le seul problème c'est que tey alalu parcelle fan lay jaar tey parcelle boo fa duggoon tey suuf si moo lay njëkk sonal. nee naa jigéenu parcelle ñoo daq sañse ci Sénégal mais bu ñu sañse di dem xew ñaari dàll ngay yor dàll booy doxee ci gandoos gi suuf si ndax dàll booy duggee ci biir xew bi c'est la triste réalité euh, man euh, Moussa Sy chaque année man Popenguine bu mujj bi sax man fekk na ma fa mu interroger naa ko mhm. euh, chaque année dañuy gis engagement bu muy am ci jeunesse catholique bi loxoom day dugg ci marcheurs yi Eh, da leen di jàppale ba day marche ak ñoom egg ba Popenguine. Mhm. door la rek. wala eh, ay eh, loolu ay mbir politique la rek yi comprendre nañ ko gis nañ ko dóor la rek ànd nit ñi marche parce que force am dañ na woon communauté catholique la. c'est vrai dinaa ko nangu mais force boobu jeex na parce que ils ont compris kii dafay naxaate barki Dembo Ndiaye rek seen tournoi yi ñu def yëpp ci paroisse bi man mi maa nekkoon parent bi. donc mooy MIPA les jeunes donc euh, nga xam ne ne aussi mbir maa ngi soppeeku parce que àddina moom dëgg rek mooy mujjee waaw donc Moussa tout le monde l'a découvert dama ne boo toogee ba sa askantey ji pour nga wax a ñoom il faut nga indi force publique boo xam ne dafa jaaxal ñëpp mag ñeex paaye ñëpp mosuñoo gis loolu ci parcelle nga xam ne nag wax dëgg fa yàlla nag il est temps nag nga débarrasser le plancher mm. il faut que aujourd'hui mu sortir par là il y porte mais sortir au moins par la fenêtre ko loolu doy na waar ëpp na waar voilà balaa may yeggali waaw xanaa rek liñ ci liñ ci njëkk a wax mooy àdduna ñett lañ ki jàpp ni moo am li ñuy njëkk a wax euh, ci ci ci mbir mi mooy àdduna ñetti nit lañ ki jàpp ni moo am dëgg mm-hmm. ak ki am dëgg ak ki wër dëgg euh, Moussa Sy daa jàpp ni moo am dëgg Mamadou duggee jàpp ni moo am dëgg population bi ñooy wër dëgg ki am dëgg yàllaa ko xam. effectivement mooy ñett ñooñu. Mhm. léegi nag su ma déggee Mamadou Guèye sama tooma li mu wax sant bi rek moo ñu wutale waaye man Mamadou laa tudd. Mhm. muy Moussa si sàcc la du baat bu oyof nag. Mhm, bu diis la bu képp ku ko ku ko wax nit rek publiquement ci rajo. <laughs> ah jàpp naa ni am na foo ko teg. Euh, sàcc la ak du sàcc moom mun na am dina dugal plaintam pour mun a seetal boppam ci li ma yaakaar wala mu ñëw fii toog ci studio bi jéem a seetal boppam ndax nag du baat bu oyof mhm. taxaw ci micro ñu mois juróom weer voilà taxaw ci micro publiquement te yow moom moo doon euh, euh, vice président bu finance commission finance taxaw publiquement na Moussa Sy sàcc la am na fu mu ko teg ah càcc googu Moussa Sy da koy dëggal ci pattam wala day ñëw toog fii weddi ko loolu ñu ngi ko ci xaar l'essentiel que li wér te wóor mooy bunt yi moom ibbiku na saa bu bëggee ñëw rek ibbil nañ ko bunt yi pour mu ñëw wala mu yebal ku ko neex. Mhm. Euh, li may dégg nag ci euh, Modou Gueye muy wax ji wax ji daa bëgg mairie parcelle euh, boo bëggee mairie parcelle nag jaadu na wér na yell na nga taxaw taxawaay bii ndax olof dañ naan rëbb ca coow la olof nawaat xajub rëbb kenn du ko yar bisu rëbb da nga ko yar laata rëbb boo negee bañ ñu tey la élection wala élection yu jub si na nga doog a taxaw temm ah boobaa yaroo sa xajub rëbb waaye buñ nee élection yi des na ay weer yu bari nga taxaw temm ci wane sa bopp wane ni bëgg nga boobaa yaa ngi am looy waajal mhm. dañ la koy nangul c'est normal ah rëbbit ca coow la bu ma ko waxee mooy ah, bu fekkente ni gis nga ni parcelle ñi ëpp ci waa parcelle dañu ne Moussa Sy yónni doy na nga ñëw bokk ca coow loola daat ni man de bu ngeen ma joxee man na maa doxal loola olof di tekki naan rëbb ca coow la waaye li dal parcelle nag Mamadou Gueye moo dal commune yu baree baree bari fii ci biir réew mi li njëkk a gàllankoor maire yi mooy xale yi mujj juddu yépp maire yi fi nekk rek la ñu xam bu ñu fàtte ni 2014 la maire yi toogoon ba 2021 mm-hmm. parce que ñu ngi bëgg toog ci seen 16 yi 8 léegi am na fi xale yu fi juddoon yoo xamante ne si 5 ans la ñu am xàmmeeguñ lu bari boobaak tey am nañ fi 13 ans jàpp 14 ans te xamuñu ñenn nit ñooñu rek ñooñu rek dem nañ ba nga xam ne kanam yooyu ñuy gis rek soof na leen maire bi nga xam ne tim toog na 5 ans ba mandaam jeex day dem ba dootul mën a sax xam li des ci trois ans yi ñu ko yokkal ma tuddee ko prolongation lan la war a def ak lan la war a bàyyi maanaam day tatone mm-hmm. loolu moo dar maire yi nekk Sénégal gépp gépp gépp fi mu ne nii du parcelle rek ñoo doyal mm-hmm. ñi ëpp ci Sénégal doyal nañ ci seen ay maire ñi ëpp ci Sénégal doyal nañ ci seen ay maire fenn rek laa d'accordul muy euh, duñu ko bàyyi muy def caravane duñu ko bàyyi muy dem grand théâtre déet ku mu neex nga def caravane parcelle kenn moomu ko te la fa ñëpp am la fa Mamadou Gueye mii am ak ñoñam moom la fa Moussa Sy am bu ko neexee def caravane pourtant lu mu lu mu ñàkk jëf ñàkk a jëf wala lu ñu ko ñàkk nangul ñàkk nangul am na ñoo xam ne ba tey ñu ngi gëm Moussa Sy ba bi ngay ñëw Moussa si la ñu gëm démb Moussa si la ñu gëmoon boo fi jógee Moussa Sy la ñuy gëm bu subaa Moussa Sy la ñuy gëm. c'est mm-hmm. ñooña am na droit ànd ak ñoom def caravane. am na droit non am na droit ànd ak ñoom dem def caravane am. am na woote grand théâtre doomu parcelles yi nga xam ne ñoo ko gëm jàpp na ne bu fa wooyee ñu wuy si ko mu woo leen ñu wuy si ko am na droit woote grand théâtre sénégalais bay jógee Gambie. wala muy jóge Mali wala muy jóge France wala muy jóge Bignona wala muy jóge Déni Biram Ndaw fu waay mën a jógee te gëm ko gëm ni war na mën a wuy si Moussa Sy mu ñëw wuy si Moussa Sy mais yow tamit am nga droit suba nga woote Grand Théâtre ndaw bi la gëm wala sénégalais bi la gëm ak fu mu mën di nekk ci àdduna mu ñëw wuy si la ndax tey bu taxawee bëgg a def caravane ñi nga àndal na du ci dal suba yow boo bëggee def caravane mbaa ñi mu àndal duñ taxaw na du fa ci dal loola mbaa du indi guerre siwil ci seen biir. <laughs> déedéet bu ma mënee tontu quelques questions. parce que am na ay interventions jëlal bi jëlal bi ak fooy man ndax man <laughs> sama jàngat yëpp day ànd ki question. Uh-huh. ndax tey bu bëggee bu bëggee. Euh, def caravane nga ne ko du ci dal ak ñi nga àndal suba moom bu bëggee def boo bëggee def caravane ndax duñ la du ci dal te ku wal mburu tuddub dëkk comme yaa ngi politique bis dana ñëw nga bëgg a def caravane uh-huh. kuy dàq mbir nag ka ko koy karle yéeneem mooy mu jàpp ko uh-huh. maanaam tey li ngay gis ci sa kanam lépp mooy xale yi la demal bësal bu mu def caravane yow la ñu àndal et cetera ñooñu dëgg la. Mhm. ci millier politique ngeen nekk loolu lépp c'est mhm. mais li nga xam ne fi lay daanale daal mu wér te mooy Moussa Sy Moussa Sy daaw daaw jéeg daawaati jéeg waa parcelle dañ ni woon c'est ren mhm. ji ñenn ci waa parcelle génn na sepabon pas ah damay wax nag ni xob li ko dugal ci pax mi du ko ci génnee Moussa Sy waxi kase du ko jëlal par du ko jëlee parcelle. ndax li ngeen xam moom la xam li ngeen am. moom la am li ngeen bëgg moom la bëgg moom la olof naan li mbëtt bëgg la bar bëgg saison boobu toog na ci sa ko ci jëlee bàyyi Mamadou Gueye tontu tontu ci benn aspect boo xam ne wax na ko mhm. euh, ñun tooguñu rek ba élection des ay weer ñu jóg non ñun depuis 2011 ñu ngi ci terrain bi di dimbali nit ñi c'est pas pour rien 2014 ma nekk conseil municipal ñun dañ jàpp ne politique rek jaamu yàlla la askan bi saa bu la soxlaa wala mu soxla dara nga mën ko demal wuti ko indil leen ko mhm. de la population je crois que tey jii ñu bëri gis nañ taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko ci Parcelles Assainies ci bëgg-bëgg ak li nga xam ne parcelle soxla na ko duma fi nekk di lim mais jàppal ne ñun dañu yàgg ci terrain bi di dimbali askan wi ba ni ñu nekkee conseil municipal 2014 te ban ko nekkee aussi dañ ci gën a dogu parce que sama waajur bu jigéen moom ma dugal ci politique ngir ma dimbali nit ñi donc may sàmm nag loolu nga xam ne teg na ma fa amul luñ ci laxal-laxal du ñu def lu ñu mënul du ñu wax mais saa bu population parcelle soxlaa ñu taxaw. Mhm. donc loolu aussi baax na aussi ñu ñu ñu wax ko parcelle su baaxoon tey doomu parcelle yi nga xam ne ñu ngi parcelle duñ taxaw di wàllu parcelle saa su ne. Mhm. ñu mel ni man bari nañ parcelle. tey jii boo jëlee tey hôpital Ma Abdou nga xam ne tey euh, jafe-jafe yi fa ne dafa jéggi dayoo ba dañuy rawale jigéen sax di ko yóbbu ci ci clando ba kanam des. loolu moo waraloon tey jii ma daw ba Paris les Dauphins jënd ñaari ambulance médicalisée may ko parcelle soo xoolee bang lii d'hôpitaux yi dañu amoon problème ba da nga doon gis ñaar ñooy tëdd ci lal da ngay mucc keneen mucc ñaar ñooy tëdd ci lal ban ko yëgee aussi def nañ ci ay jéego indil parcelle ay lii d'hôpitaux ay chaises roulantes. Mhm. c'est pour vous dire ban ci yàggee def def na dugg nañ ci école yi di euh, inscrire mhm. suñu jarbaat bu nu indil bu nu ñëwee vraiment ñu xool gis xale yi di yëkkati table banc de salle en salle. ma laaj brevet ma ko lii lan la mu ne ma non dañu amul table yu doy ma ne ko ah bon mu ne ma ne ko dinaa leen may table bon mais jour boobu dafa xool ree ma parce que maa ngi sol benn lakos ak sama benn jean teguñu ci ñaari weñ indi deux cent soixante cinq table banc may ko école parcelle Moussa mii li may wax yëpp. Mhm. Moussa moo koy présider. Mhm. moo koy jiite. Mhm. avec l'IEF et le sous-préfet may ko parcelle Assainies. école yu bari bénéficier wu si. joxe nañ fa aussi cinq teg yoo xam ne bi président ne il faut que xale yu ndaw yi di liir et cetera wuti nañ ay bibliothèques cinq bibliothèques yoo xam ne ay livres au programme may ko les cinq bibliothèques des Parcelles Assainies. Mhm. liñ fi def bare na ci loo xam ne dañuy dimbali askan wi booba sax amuñu taxawaañu parce que liñ ne maire bi nii mais askan wi ñoo taxaw ñamay nekkal ñoo ne li nga def ci parcelle di ko fi def tey wóolu nañ la pour dénk la parcelle. Mhm. parce que am ah mosoo takku ndomb tànk man mosuma laal mille francs xaalisu politique mosuma takk benn ndomb tànk. mais li doon def dañ koy def de gaieté de cœur parce que dafa neex nag vraiment nga ñëw jàppale sa askante yàlla rek a tax moom laa doon préciser pour nga xam ne septembre passé xarafal nañ mille sept cent cinquante et xale gratuitement jox leen ay yére jox leen lépp et cetera chaque année ñu def consultation ophtalmologie ci mag ñeex ndaw ñeex ñëpp may leen ay verres correcteurs et cetera des verres de soleil li ñu def ci parcelle bare na. Mm-hmm. jóguñu rek tëb rek ne dañu soxla mairie bi. ku def loolu mouvement génération originale. ak Gueule originale ñun ñooy def yooyu yëpp ci biir parcelle. Mm-hmm. bare na liñ fi def. donc Modou laa doon préciser. Mm-hmm. que tooguñu rek ba mu des ñaari weer ñetti weer. wala 6 mois ñu taxaw ñun depuis 2011 ñu ngi ci action sociale. Mm-hmm. bi ñu njëkk njëkk def mooy bii xale yi en 2012 avant les élections bënn na euh, ñaari voies Cambérène yi ndox mu bon mi. boobu toog nañ presque trois mois 4 mois du benn autorité bu nuy jàppale man maa mobiliser li ma am mobiliser jeunesse bi. ñu defar foofu ba mu set jour boobu guddi gi jigéen ñi sabar laa leen may parce que dañoo toog kontaan ne ça fait six mois quatre mois gisuñu goudron parce que dem nañ ba xale yi di wàccu xale yi di am ay feebar ay épidémie c'est pour te dire rek ñun yàgg nañoo def action sociale te booba lii xewagul. Mhm. donc lii dafa doon loo xam ne doon ñu dab. Mhm. ñu nangul ko waa parcelle. parce que gëm na ne tey jii ndaw yi ñoo war a soppi politique gu Sénégal. ko ne mhm. damay politique mun a cam parce que suñu mag ñi dañoo yàq. image politique. Mhm. donc loolu laa bëggoon préciser. Euh, bëggoon naa xam lan moo waral euh, génération originale. waa xam nga génération originale dañ ko copier ñoom ci géej l'original originalité bi lii ko indi mooy que yàlla daf ma jàppale depuis ma nekk xale li nit ñi di def man damay jéem a def leneen damay indi lu gën a original fi may wax ak yow nii euh, fa may liggéeyee ci privé catholique je suis le secrétaire national chargé de revendications de l'enseignement privé catholique. te jullit la jiite syndicat pendant des années mais aussi fa may liggéey nekk délégué principal sauvegarder xeexal travailleurs yi. lu mosul am je suis pas enseignant mais je suis euh, comptable actuellement je suis le responsable du patrimoine fa may nekk muy foo xam ne fu rëy la muy cour Sainte-Marie de Hann mhm. donc ça fait des années ñuy liggéeyal ñi nga xam ne ñoom la ñu nekkal créer leen coopérative d'habitat aujourd'hui on a donné plus de cinq cent et quelques terrains et villas mhm. bokk ci ñi créer mutuelle de santé ku feebar faju ci travailleurs yi donc lu ñu yàgg di def daal dafay doon loo xam ne dafay original ba tur bi fa la jóge maintenant bi ñu duggee ci politique aussi dañ ci indi loolu mooy que li nit ñi di tàmm def chaque fois rek dañuy def jéem a def leneen parce que aussi loolu moo indi original ba original te keroog bi may joxe ambulance yi préfet ci boppam moo ko validé le sous préfet Babacar Ibrahima nga xam ne nekkatul parcelle moo ne wax dëgg fa yàlla tey nangu naa ne yow yaay l'original parce que def benn yoon mën na nekk tàndeef tànduus mhm. mais def defaat c'est le kër ki parle donc nag grade boobu moom takkal nañ ma ko officiellement par su préfet bi fi jógee muy Babacar Ibrahima. Mhm. Mhm. te mouvement bi lu ko tax a jug mooy jël mairie bu parcelle. en réalité on a eu quelques parce que euh, ñun li ma waxee rek ñu ngi dugg politique mais bi ñu demee ba ci biir aussi dañuy gis ne politique bi dafa bari lu ci dëng. dafa bari aussi ay coono ay xeexante. et cetera donc bi ma comprendre loolu te man vraiment dama bëgg a dem dem bi mooy lan lu ma bëgg a def man gëm naa ne war naa ko mën a def si laa teg sama mouvement génération original am sumay nit nga xam ne lépp lu may organiser samay nit ñoo ñëw teew parce que dama nan ba benn moment ni ñu nekkal aussi boo daan xewle daal dañuy téye nit ñi il le faisait sciemment parce que bëgguñu woon nga émerger daal donc form politique boobu nag moo sonal vraiment ndaw ñi raison pour laquelle ñu mouvement bu yàgg nga xam ne lu ñuy def rek mouvement mooy organiser mooy def lépp donc looloo indi surtout mouvement bi mais aussi pour aussi être libre et autonome parce que wax naa ko ñun dugguñu ci politique pour vraiment ni ko nit ñi non non non rentre est en politique pour vraiment accompagner les populations parce que gëm nañ ne balaa na nga ne da ngay politique say tànk day dëgër. Mm-hmm. say tànk day dëgër mooy dangay ngay mënal sa bopp. Mm-hmm. mais li ñu constaté mooy ñu bëri amuñu métier amuñu benn qualification. mais mm-hmm. tey dañuy dugg ci politique pour tekki ci. moo tax chaque jour nag dañuy soppeeku comme ay kakatar. Mm-hmm. donc loolu la ñun mouvement bi c'est un peu pour am une assise pour mieux s'exprimer et donner aussi des leçons à ñi nga xam ne dañ def politique euh, tremplin wala ñu def ko loo xam ne liggéey la or politique normalement c'est sa temps perdu nga war a def sa politique da nga war a am sa liggéey bu am doole mm-hmm. nekk ci ba pare nag nag da ngay doog a jàppale. kon yéen jëloo leen politique ngeen def ko seen métier. non nous on a des métiers ñi ci ne yëpp dañuy liggéey ñun macha allah. d'accord euh, balaa may ñëw ci sa ambition yi en tant que jeune ci sa mhm. gox euh, bëggoon naa nga indi ay leeral ndax euh, paraît-il Moussa Sy am na piscine bu mu tabax foofu noonu ak stade bi nga indi ñu fa ay leeral ci coowal stade boobu ak piscine bi waaw xam nga coowal stade bi man bi may nekk conseil municipal 2014 fekk naa maire bi toj stade bi fi nekkoon parce que amoon na stade bu fa nekkoon ñu fa doon def lépp ah. nawetaan yi làmb ji lépp quoi mais bi mu ñëw daf ko toj ne dafay def stade mille cinq cent places avec un budget de trois cent millions man lool laa fa fekk. Mhm. mais ce qui est bizarre moo que à chaque fois que euh, vraiment ñuy dem stade bi promoteur ñetti jaar nañ fa mais ku nekk dafay takk c'est-à-dire que promoteur dañuy ñëw commencer mais après dañuy dem dañuy takk. ñu arrêté voilà donc il parle de quatre c'est faux. il n'a jamais investi quatre parce que le budget était de trois cent millions. aussi mu bàyyi. vraiment budget budget stade bi. stade bi ah, kese c'était 300 millions. pour mille cinq cent places. Mhm. donc suy toog naan def na ci quatre cent millions boppam lay nax c'est parce que loo xam ne du loolu cent soixante dix millions lañ ci def te trois promoteurs jaar nañ fa te promoteur bu ñëw yóbbu suñu xaalis te moom Moussa si du leen topp en justice donc ñu bàyyi nit ñu analyser am na lu fa am. stade boobu nag bi ñu toogee ñu fal lu 2014 2015 2016 ñu jóg na ñoom dañuy def retraite municipale war a yóbbu onze millions à Saly. si la ñu taxaw ñun ne loolu du fi am mënu leen jël autant d'argent ne da ngeen dem retraite municipal or fii rien ne fonctionne stade baa ngi nii xale yi amuñu fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy defee seen i compétition seen xeex ak ñoom xeex bu métti on était que trois conseillers muy man Bass Ndiaye ak Khadim ga xeex xeex bu métti ci biir conseil municipal ba sax mel ni bas deretam tuuru foofu xale yi aussi yëngu-yëngal ci dëkk bi Euh, si le président Macky Sall boobu mu ngi def dernier conseil municipal à dernier conseil ministériel décentralisé à Pikine. Mm-hmm. si la demande de ministre Amadou Ba pour si budget Sénégal mu yokk ci pour le stade. aujourd'hui on a un stade de cinq mille places avec deux tribunes démontables et gazon synthétique et tout un complexe foo xam ne xale nañ fa mën a def seen i entraînement musculation avec des bureaux et tout. Mm -hmm. c'est pour vous dire rek aujourd'hui il est. il va le mettre dans son bilan, mais tout le monde sait que c'est pas son bilan, c'est l'État du Sénégal qui a récupéré le stade. Et il même pas un mois, le monde sportif mu ngi doon defaat sitting woo presse bi yëpp pour xeex pour que stade boobu mën a pare parce que ba tey ji stade bi mënul pare mu ngi en phase de finition. d'accord kenn mhm. mënul du ko utiliser. su ñu ñëwee ci piscine bi aussi piscine bi euh, l'idée était noble ah. moo tax ma ne la ñun <laughs> li ñu gëm la ñuy wax. baaxoon na parce que jamono yooyu je crois que am na ay xale ci parcelle yu demoon plage ñàkk seen bakkan donc de c'était de faire benn piscine boo xam ne au moins xale yi parcelles ñu bari nañ toog ci piscine bi donc loolu la ñu jàppoon mais malheureusement malheureusement piscine bi déjà ñun ban fa demee rek on a eu des problèmes ci étude bi rek dafa am problème ba tey ji parce que mënoon na da def piscine technicien yi étudier ñu def budget dem ba commencer piscine bi l'année bi topp budget bi doublé pourquoi parce que y a des paramètres yu ñu jëlul woon xam nga lool rek fa la mbir mi njëkk a jaxasoowee mhm. piscine bi nekkul en norme ba pare xalaatoo woon ne tey ji ndox ndox bi ndox ba war a <laughs> nekk ci piscine bi nekku ci piscine bi defar nañ ko dafa ndaw mhm. parce que respecté wul les normes mais mënul am ndox donc ay at a ngi tey avec y a un problème avec la SDE où ñu ngi ñuy réclamer huit million pour mën a ndox bi di mën a ñëw moom il a des difficultés alors que loolu nee nañ bokkul woon ci étude de projet bi. Mhm. yaakaar naa kuy def piscine doo si def diwlin. léegi projet boobu dafa taxaw mu ngi noonu je sais pas je crois que yenn saa yi ñu root ko mais sapeur yi la gën a jaar parce que ci camp sapeur nga ko def milieu bi nga ko def déjà moo gën a bizarre camp sapeur waxtuma loolu euh, étage yi ñoo ko wër tey jii tey boo jógoon na tey da ngay dem piscine non doo fa dem parce que amul benn intimité état ak ñëpp xam nañ technologie ni mu demee tey jii avec les portables. Mhm. voilà donc du palaasu kilifa daal voilà du palaasu kilifa un du sax ndaw bu respecté boppam jigéen bu respecté boppam du dem ci milieu boobu parce que étage la wër on te voit de partout un de le budget a doublé le budget qu'on nous avait présenté <laughs> xam nga loolu mooy suñu coono ñun dañuy nee di xeex mais malheureusement on est extrêmement minoritaire dans le conseil municipal donc moom euh, kii mécanique chaque fois mooy remporté le budget a été doublé l'année qui suit parce que appareil yi war a jóge franc nangam nangam comme si bizarrement appareil yooyu wala lii war dem ci piscine bi defuñu étude bu sérieuse ko donc voilà. Mhm. ba tey ji piscine baa ngoog. xam naa ne daal mbott yi ñu ngi fay cëpp cëpp surtout ah. nawet bii di ñëw c'est vrai xam man du ma <laughs> mbott yi moom ñu ngi fa di cëppi cëppi mais askanu parcelle moom ak ah, ndaw yu parcelle yaakaar naa ne demuñu ci piscine boobu. Euh, man je me dis que sax population boo xam ne dañu am déjà jafe-jafe ndox. parce que parcelle bëri na gox yoo xam ne li ñuy ñàkk ndox bëri na tamit de. Mhm. voilà ba pare nga indi piscine. Euh, day daal doy waar Modou Fall xaama jox la kàddu gi. <laughs> Euh, gis nga li may li may doon gis sànq rek laay waxaat muy moom a Mamadou Mamadou géey mi daa mhm. dugg ci roq bu xat. Mhm. boo xam ni politiquement pour mu génn ci dina jafe. Euh, du neex a dégg nag ci ndaw lu toll ci wut day jafe lool li nekk ci kanamam mooy rek li mu teg gët gët awolof ah, laa wax. waaw li mu teg gët rek. motivation bi quoi voilà moom lay gis. Hmm. mais day xat ci moom day jafe ci moom day difficile ci moom. mu nekk ci roq boo xam ni ministre Amadou Ba ma nga fa roq boo xam ne Mbaye Ndiaye ma nga fa roq boo xam ne Moussa Sy ma nga fa roq boo xam ne xaadim Gadiaga ma nga fa ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñu ma tuddul seen tur te ñu bokk benn langue. te wiiri wiiri jaari ndaari ah, yàgg mais population moo gën a am doole ñooñu ngay wax. may ma ma ñëw population bi sénégalais yi yàgg nañ leen a tourné ci seen xalaat ba di wëlbatiku naan du nii du nii ba bis ba jot ñu jékki-jékki dem def leneen. ay jamono la woon a ah? jógu fi 2019 bi rek feeñaat na fi te tey la waalo gën a ay tey la gën a difficile déggoo barki démb ñun la am na ñun yabee dakaar ay kaar yu dul xaaj jeex yóbbu leen ba Fuuta. Hmm. ci 20 000 francs journée 20 ñëpp mm-hmm. luy toll ay téeméeri téeméeri kaar yóbbu leen ba Fouta déggoo ko. dégg nañ ko voilà nga ne ma jeex na fi kañ la fi jeex. li ñu gëm mooy que ñu ngi conscientiser. ma daaneel ma ñëw ma ñëw sonn nañ ba ba tey noppalooguñ. waaw voilà ma ñëw. Mm-hmm. cest danga nekk ci roq bu xat boo xam ni ña nga fa fekk ña nga fa fekk ay ténor nañ ci wàllu politique. Mm. te wiiri wiiri jaari ndaar yàgg yàgg ñooy ànd ñoo bokk benn langue ñooy bokk benn list kenn lañuy jiital mm-hmm. benn kilifa lañ am muy président Macky Sall te li mu wax leer na mm-hmm. muy bëgguma benn benn membre bu bokk ci biir Benno Bokk Yaakaar génn di bokk ci beneen liste mm-hmm. loolu wax la rek waxam la may ma ma daaneel Mamadou <laughs> waxam la yow li nga wax léegi sa wax la ku ne sa wax rek ngay wax na li nga nii def may ma ma daaneel <laughs> non non non may ma ma ñëw dégg nañu président Macky Sall mu ne bëggul benn liste génn uh-huh. benn nit génn bokk ci beneen liste mm-hmm. ñëpp nañu bokk liste bennoo bokk yaakaar mm-hmm. bu dee téeméeri nit ñoo nekk ci bennoo bokk yaakaar gëmal ni juróom-ñett fukki ak juróom yëpp d'accord nañ ak moom fukk yeeg juróom ñooy balballu te dañuy ut luñ am bu leen woowee na leen téye esprit jeunesse bi ak ah. xale yi si nga bokk. ba tey non non je suis pas d' accord. il faut pas avoir boo gëmee loolu ça va waaw may ma daaneel. non non boo gëmee loolu ça va sa la. c'est-à-dire léegi. je lu mel noonu si sa sa opinion la d'accord naa man noo gisee rek ça va lu mel noonu tey nga nekk ci roq boobu. Hmm. di xëccoo mairie du yomb lu jafe la. te it boo doxee tuuti di nga xam ni lu jafe-jafe la mooy li ma wax sànq ni li ci sa kanam li nga gis ci sa kanam mooy rek gañe beneen bi ci des Moussa si sàcc la bi am na tuuti loo ci jot a firndeel man baat boobu dafa ma yitteel muy wane nga ni euh, stade bi neewoon na 400 million la ci def te 170 millions la ci def budget bi 300 millions la mu déclaré woon 400 millions. tam si 400 millions. voilà dem boo njaay rek mu ngi koy waxaat. voilà te ñi fa jaar ñëpp lekk seen xaalis. moom du leen topp est-ce que kon moom dafa ànd ak ah, ñoom. dil boobu loolu xam naa di nga ci tontu xam naa am nga ci lu gën a leer. léegi nag léegi ku mel ni yow doon ndaw nekk ci roq boobu war a jàkkaar ak ñooñu ah ndax war na bu musaa si waree def caravane mu ne du ci dal bu Moussa si waree dem ci rajo mu dem kar ko bu musaa si waree dem grand théâtre mu ne du ci dal kan moo ciy perte. Mm. wala ñan ñoo ci dee ndaw ñi nga xam ni ñoom nga gëmloo ni. Mm. lii wërta am ndaw ñooñu ñoo dem sànni xeer. ñu dóor leen lacrymogène nda seen bopp toj ndaw ñooñu ñooy dem sànni xeer ñu dóor leen fetal ñu ñàkk seen bakkan ndaw ñooñu ñooy dem sànni xeer ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi ñu tëdd pen ay at ndaw ñooñu ñooy dem sànni xeer ñu rey ñu dem tëdd armeel seen ay mbokk ñàkki leen kon li nga xamante ni si moom laa gëm uh-huh. te tam leer ma ni moom la politiciens yëpp di dund ñu ëpp ci politiciens yi loolu la dund muy kane uh-huh. fexe nax ndaw ñi uh-huh. yëy bopp ndaw ñi nax leen politiquement ah. gëmloo leen seen bopp wan leen ni yëf xeex la mm-hmm. ndax politique gu Sénégal léegi li fi li fi xew lu bees la mm-hmm. muy mbir mi xeex la mbir mi duñ leen ko bàyyee jàkkaarloog ñoom la déedéet ah. politique du xeex politique ay idée la ah. amal sa programme ñëw teg ko bu doyee waa parcelle ñu votel la Moussa mm-hmm. nga nangul musaa si programme am mm. mu tegaat ko bu doyaatee waa parcelle ñu votel ko mais gis nga benn politicien bu ci jàpp ne jaasi paaka pistale xeer moo lay fal gëmal ni boo ci faloo bu subaa looloo lay folli ndax loolu ngay woon ndaw ñi mhm. dañuy jàpp ni tout le temps lii mooy dëgg dañuy jàpp ni chaque jour lii mooy fale mooy folli bu njëkk sénégalais yi amoon benn benn benn idée muy kane ah damay toog ba bis bi jot ma dem xool ki ma doy ma voteel ko mhm. damay toog sama kër ba dimanche jot ma yeewu sangu ndékki dem ci urne bi xool ki ma doy ma voteel ko léegi nag politiciens yu bees yi nga xam dañu ñëw wax ne dañuy changer système bi mm-hmm. ni ñuy changer système bi moo gën a bon mm-hmm. nan nañ koy changer nañu xeex nañu reyante na na na nañu jaar suñu bakkan doog a jàll na mm-hmm. deret ji tuuru uh-huh. buñ leen ko ko may ñoom yoruñu ay noppi garmi duñu dégg déedéet bu dee noonu ngeen di changer système bi bàyyi leen ñu ci système bi ñu nekkoon li ngeen bëgg a changer système bi baaxul ci ñun baaxul ci suñu ay papa suñu ay yaay baaxul ci suñuy maam ci ndaw ñi la gën a bon ci suñu doom yi juddu ëllëg ci la yéesee li ngay wax dama la koy firndeel dama la dëggal li nga wax ma daaneel yow kay sa daaneel dafa ma daaneel rek nga jël kon il faut voilà kon il faut système bi ngeen bëgg a changer <laughs> ngeen changé ko ci gën a yee xale yi ci ne ah mbir mi kat du sànnante xeer mhm. mbir mi du daw kar Moussa si mbir mi du kar Jean madaaneel daaneel mbir mi du kar xaalis pour dem voilà mbir mi du du Moussa si gis nga Moussa si ah. Moussa si miñ ne day jël xaalisu mairie bi pour dem caravane bul fàtte ni politicien la bu yàgg ci làng gi ab laa doon àndal jóge ci Abdoulaye Wade ànd ak Macky Sall am na moyen boo xam ne bu dul xaalisu mairie bi tim mën na dama jëlee def caravane def def euh, grand théâtre bu ko neexoon dem jël salle bi gën a riche France jël importé fii ay nit ñu fekk fa am nañu moyen boobu mm-hmm. mais li nga war a gëmloo xale yi mu mm-hmm. conscience ci seen bopp mooy que ne mbir mi du sànnante xeer du karante rayante kenn ko sànni xeer moom laa lay bëgg a tontu mais bu ngeen bu ngeen ko karee bu ngeen ko karee ci ci rajo bi bi muy dem RFM tout est ci Babacar Fall non moom may may ma daaneel da nga dugg fu neex foo xam may ma daaneel nga tontu nga baal waaw daaneel nag may ma ma daaneel mu gaaw parce li ngay wax nii dama la koy dëggal dinaa la wan ne kenn sànniwul dal leen question yi <laughs> leen ma daaneel boo noppee uh-huh. nga wax loola soob sa intervention day yàgg nag te man maay invité bi sànq dama la dégg nga wax dix minutes soixante quinze minutes man cinq minutes rek laay wax daal di lay jox xoolal daaneel may ma may ma may ma ah. gaaj ma du yomb cest diir li nga xamante ni si fi nga war a jëm a xale yi mooy ah. du fekk ko ci rajo bi na bu du ñëw bu ñëwee dañ ah. koy puudar du du boo defee caravane ñu kar la déedéet boo faloo ci noonu bu subaa yaa ciy follikuwaat ndax xale yi dañuy gëm ni rek xeer yat paaka jaasi la ñuy falee moom nañuy folle te système bi nga xam ne moom ngeen ñuy woo tout le temps mooy système bi ngeen di changé bu dee noonu ngeen koy changé ñun doyal nañ bëgguñu boobu système moo tax ma ne la nag li nga wax yëpp dëggal naa ko mm-hmm. mais heureusement que ñun jaaruñu fi nga wax noonu caravane bi gis nga benn jeune génn sànni xeer xam nga jeunes yi lan laa leen toog leen seen kër teg seen attaaya xool seen ko d'Europe déglu bu baax li ma lay wax gis nga dama ne ñun dañuy changer mentalité bi sax dañ koy changer parce que tey musaa si dañ ko dañ ko dugal ci piège boo xam ne moom xamu ko pour wane ne kii du waaja c'était stratégique ñu dem fële taxaw ne ba léegi Moussa Sy gisuñu ko ci yoon bi lan na ko bul egsi parce que dañu ñëw pour exprimer sunu désarroi bëgguñu ko woon may mu wax parce que li mu def parcelle dafa metti amul droit à la parole pourquoi du wax xaaral ma ñëw lan lay wax ñëw foofu ANC ANC la fay indi lu mu fay indi noonu mooy euh, congrès la fay indi cette parcelle talul congrès congrès boo xam ne pour neexal Macky sàll la. Moussa Sy tey benn jéeg la boo xam ne tey jii dafa puudaru maquillé wu di neexal Macky sàll pour la mu doon def Ablaye Wade def ko Pape Diop def ko Khalifa Sall ku ñëw mu ànd yow nga yokk ko doole tegal ko siège bi population bi di gën a dee lool la ne du fi amee. mais daa toll ci wut te de may ma ma ñëw wut xanaa ñaataat mu ngi wut. yow yaa ngi wax bi yow yaa ngi continuer sa bopp yàgg nga wax ne ne ñooñu la ñu mas a xam visage yooyu la ñu mas a xam nga muy wutaat terewul muy wut waaye déglu rek ñun nag ñoo ko arrêté wut boobu parce que ñun suñu bakken bi mu takk ay kii di ko diri la ñuy bañ un de deux te dire nous on a été stratégique man mii di wax ak yow sama benn rak wala sama benn jeune du ma ko yóbbu au front mais c'était stratégique quand on sort on dit que du fi def caravane et cetera c'est une pression bu ñuy def quelle pression ci moom. Mm-hmm. déglu rek dama leen nga xam lan la ñu teg pression la ñu teg ci moom bu tara tara tara tar jàppoo na ne tey jii te loolu lañ ko doon bañal nag. indi force publique gars yi génn xeex moo victimisé wu ñu toj ay oto et cetera ñu ne nag ñii ndaw ñii nag ñoo bëgg a jiite et cetera lii ne moo tax ñu foofu ñu pousse ko ñoo indi pression bu rëy teg ko ci kawam teg ko ci autorité yi. pression bi lan la déglu rek mais mooy lu ñu def conférence de presse dal ci kawam. empêché ko mu dem fële déglu rek waaw empêché ko ne du campagne et cetera. mais effectivement am na droit nekk candidat am na droit campagne mais jeu de mots la un waxatuma loolu ñu dog am suñuy yitte yu nu def la dimanche matin. yëkkati puudar bi ba pare toog di leen seet. mais li nga wax am na ndaw ñu gëm ni warul campagne li nga wax yow génn na doo fi campagne. déglu ma am na ndaw ñu gëm ni warul campagne. déglu ma wax la man mii di wax ak yow. loolu laa njëkk a prôné te loolu laay prôné gis nga dans la vie tout est stratégique gis buñ ko defoo ñu ko def du indi force publique bu mu indi. hélicoptère rek ci manqué. est-ce que du force publique moo leen tax arrière. seen yéene mooy dawal carco non ah, déglu ma ñun ay kilifa boo ñoon fekk fa ñuy réunion ay kilifa ñoo fay nekk te mouvement bi ñëpp ci bokk parti au pouvoir yi parti opposition société civile. ñu mosul def politique ñëpp ci bokk parce que dañoo sonn ci li ñuy dund ci parcelle. moo tax ñu ne free parcelle. Mhm. comprends li ma la wax. la ñu def yëpp ñoo ko déroulé parce que xam nañ waa ji esprit bu mu mas a dawal il est impulsif il fallait le toucher profondément ba pare di ko seetaan. Mhm. tey ji su ma noon tey jii armée nationale mooy wàcc lii wàcc sax jege na armée. Ah, mais li ngeen ko wax loolu ba mu amee. ñu ñu toog suñu kër teg suñu ataaya seetaan suñu coupe d'Europe parce que on savait pertinemment. le gars daw deuxième est que daw leen deuxième. non ñun duñu ñu ay dawkat keroog bu mu indee trente nervi la indi marché Dior à une heure du matin. bëgg jël bagaasu booy yi marchand ambulant ya fa yëpp man booy yi dañ ma woo ba ma ñëwee taxaw nervi yi laa song seen bopp kooku tàppet du ko def mhm. ba pare saaga leen ne leen moom na ñëw loolu tàppet du ko def c'est-à-dire que dama ne àddina gis nga bu nu bëggee changer système bi ngay wax nii xel moo ñu ci ngeen koy changer baaxul de non man ñun ñun indi ñu violence moo suñu indi violence déglu bu mhm. ma la dama ne la mais xel moo koy indi gis nga politiciens yi dafa am surtout boo àndee pouvoir dafa am nooy xeexeex ñoom te ñun loolu lañ indi ba am ci liñ ci am. Mhm. tey li am parcelle dugg parcelle. ci mhm. takk der dugg parcelle ci ay blindé pour sotti population bi ndox bu tàng dugg parcelle ci ay nervi ñu leen di fay vingt cinq mille par jour or suñu jigéen ñi tey jii ku ciy matu da ngay tiit dañ lay génne parcelle ku war a def rajo doo ko def ku war a def scanner doo ko def ku fa faatu tey jii morgue ba amul clim ñun loolu la ñuy xeex mais on le xeex. dañ koy xeex avec l'intelligence foofu laa ne la d'accord naa ci li nga wax nous on n'appelle pas la jeunesse parce que tey kuñ ca gaañoon wala ñu arrêté ñun ñooy yéeg di wàcc or ko mhm. jar mais nag da ngay teg stratégie yoo xam ne boo ko tegee waa ji dugg ci pax bi aujourd'hui mhm. grand bi desatul dara lu dul kilo dugg na très rapidement on va on va enlever ça. <laughs> il faut que may àggal question ah, yi <laughs> dugg na ci te ñëpp xam nañ ne kii. président ci boobu moo la gën a xam ne kii population war nañ ko ginnaaw. bu toogee moom dès l'instant que mënatoo sa population te andi woo armée nationale xam nga d'accord population bi. da nga naan ñenn ci population bi. Moussa Sy est la caravane ba commencé na ba fay mas nga gis nit ku taxaw rek tàccu. vous avez les images. waaw gis nga ku taxaw tàccu leen. waaw. non attends am nga nit ñaa ngi woon ci kaw étage yi di tàccu déedéet yow xanaa yow kii moom kii moom caravane Moussa Sy nit ñaa ngi woon ci kaw étage yi avant ngay ñëw fii non mën na nekk gën a garaaw dégg mën la loo wax baax na xoolal tey xale yu ndaw la ñu mobiliser vous avez les images xale yu ndaw dégg ma ne la ñu et ce qui est très dangereux xale yu ndaw la ñu solal ay t-shirt ñoo constituer caravane bi man li ma demandé rek honnêtement mooy que mm. ñu décrypter carrément le message des images et le message de tout ce qui s'est réellement passé au Parcelles Assainies. Mm-hmm. moo tax nag yow ma naan la vraiment euh, say discours yi ngay jot ni yi ngay def nii yow moom jeunesse bi. war du la du la du la du leen arrangé. samay discours man la ma arrangé du leen arrangé. déggoo ma la ñun nous sommes des professionnels. tey jii dama la ku yee ku yee jeunesse bi du arrangé. ki nga xam ne bu soobee jeunesse bi ne rek di nelaw. mooy ñu dem jàngi ji. njëkk am ay diplôme. njëkk am taxaw am ay tànk yu dëgg. am na ku am na ku jàppale askan wi dafa mel ni am na ku lay sotle si de. Ah, politique yooyu nag. Rewmi FM bonsoir salaamaaleykum. Sakho. allo waaw. liggéey Sakho laa bëgg Sakho. Jacko dafa jaawale ah. waaw dafa jaawale dafa jaawale émission yi je pense. DJ Sakho ñëwagul. mooy li may wax rek. xam nga ñun lan la ñuy conscientiser. waaw bu leen kenn joxati sandwich. njëkk. bu leen kenn joxati 2000. bu leen kenn joxati xartum yéen jigéen ñi. waaye bu leen kenn xeexlooti bu leen joxati ay t-shirt. waaye pour ngeen ñëw élection jox ngeen dox ba sonn. bu leen kenn xeexlooti mobiliser leen ngeen wax ba sonn bu élection passé ña ngeen kon dafa doo leen. bu leen kenn xeexlooti waxaale ko ci. non dama ne tuuti gis nga xeex. xeex moo tax ñu am statut cinq mille places te ñun ñoo xeex ñun les conseils municipaux déglu ma rek dafa am fu mu toll boo xam ne ñii war a xeex ñooy xeex mais système bi ngeen di xeexee ak bi ngeen di xeex loo xale yi du benn da nga mas gis ñun ñoo xeex ak loo xale yi waaw mais li ngeen wax mooy bu demee caravane ñu kar ko bu demee waaye sëñ bi nag dégg ci point de presse bi mais dafa am xale day am ndaw ñoo xam ne loolu la ñuy gëm dañ naan ah Mamadou Gueye kat nee na dañ ko war a kar dañuy génn kar ko gis nga benn xale bu kar génn xale bu yor xeer benn xale bu sànni mais amagul mais dama ne la dafa am ndaw yoo xam ne mm. psychologiquement loolu la ñuy di gëm ndax yow nañu gëm yow sa jëmmoo mm. yow nañuy gëm ba boo waxee rek yàlla li wax mën a génn pour jëfee loolu gis xoolal da nga def point de presse point de presse nga def ay point de presse wax ay point de presse nga wax yi ngay gis nga mën a xale yi ngay gis. Ah. nga mën a mobiliser ba doo leen dugal ci baron boobu duñ dem di kar mais am na xale bu nekk ca parcelle. Ah. gisoo ko mun a jote ci yow. jàpp na ni suba bu Moussa génnee war a def caravane daf koy kar ndax yow yaa ko wax léegi def na caravane gis nga benn xale bu def campagne da koy kar ndax yow yaa ko wax léegi nag yow il faut ñu laver tout ces esprits yow il faut ñu boole ci oh. formation yi defal ndaw yi d'accord man lu ma lu ma su jox ma jël ndax xam-xam rek laay wër mooy fekkoon ne ay jeunes génn nañ def dara mais gisoo kenn ku mais jeunes yi Moussa Sy moo leen bàyyul ñu génn ndax moo indi ay ah, ah, moo indi eh, ay ay garde corps ñu war ko ba jeunes hmm. ngeen ruux arrière. kon tu confirmes que kon population bëggatu ko non du population bi yéen ruux yéen ay adversaire ne woon ah. du dem. mu indi lu tax mu mën a dem ngeen ruux arrière. loolu te jeunes yi sànni ko xeer arrière nag ba moom wane na à la face du monde. waaw que pour faire sa caravane. Hmm. il faut mu ay blindé am ay chars de combat am de milliers de jeunes. loolu lépp stratégie am des ma rek déglu ma rek comme moom def na ko noonu. mobiliser wu li mu war a mobiliser jël ay xale yu ndaw 12 ans 13 ans solal leen. Mhm. kon nag nañ ko bàyyi loolu yow àndalax moom nga téye loolu. ñu avancé Guèye Guèye l'original. <laughs> waaw euh, quelques mois moo ñu des ñu dem ci élection locale yi. Mhm. yow dangay samp sa ndënd loolu leer na euh, mhm. luy sa ambition en tant que jeune. ma préciser ko fii parcellement njëkk samp ndënd man. ça fait plus de deux ans trois ans ba ma sampee sama ndënd te kilifa yi ñoo ne ma ñu bëri sax ci conseil municipal yi ñoo ne ma sampal sa ndënd. ñii la bëgg a jàppale ànd yow bari nañ soo toogee ba ñu joxe seen kàddu feneen du baax parce que ñoom bu ñu xësee joxe seen kàddu du ñu reculer man ba may samp ndënd kenn waxul wax yi mm-hmm. honnêtement parlant donc dafa leer moi je serai candidat incha allah et je gagnerai. Mm-hmm. Modou mi dinaa ko invi dinaa ko invité incha allah buñ may <laughs> investir. incha allah wallaay donc lu luy sa yéene ci askan wi foofu. suñu yéene mooy que vraiment euh, euh, ndaw parcelle liggéey Parcelles Assainies aujourd'hui ce qu'on a constaté pourquoi parcelle mënul dem maire bi fi ne c'est l'alpha et l'oméga de la commune maire bi am na six adjoints au maire mais quatre-vingt-dix pour cent ñoom ñëpp am na ñoom problème ba xëy néewatuñu sax faf parce que maire bi mooy buur di bumi mooy def lépp tey wàll boo jël tey ñoo ñoo boo jëlee équipe bi tey ñoo ñoo nekk ci ginnaaw ISPA parce que maire bi mooy def lépp lu xew parcelle c'est le maire mooy jàng-jàng yi mooy tant tant yi mooy togg ceeb yi mooy joxe paas mooy raxas ndab yi or une commune ça fonctionne pas comme ça moo tax ñu defal ko six adjoints au maire tey suñu problème parcelle mooy que tey monde bi village planétaire la et ce sont les équipes qui gagnent mm-hmm. tey jii ni ñu xalaate parcelle ndawu parcelle moo war a tabax Parcelles Assainies tey boo xoolee jeunes parcelle yi am nañ ay compétences ñu bëri jàng nañ ñu bëri am nañ expérience mais malheureusement on les utilise pas lépp lu ñuy def parcelle dañ koy wàlli yaan tey commune boo demee lu bëri ñu koy liggéey du ay waa parcelle ah mhm. waa Cambérène la am na agent yu bëri yoom dëgguñu parcelle boobu nag mënoo defar sa commune parce que en bu nga defar commune tu dois baser sur les ressources humaines yi nga xam ne moom nga am mhm. mais les identifier les organiser je donne l'exemple bu ne dañuy tabax chaque année ñu wax ko mais mësuñu ko def building administratif parcelle il y a de très bons maçons il y a organiser leen en coopérative tu sais en Europe boo jëlee coopérative yi moo développé réew yooyu. Mm-hmm. coopérative du batiment wute leen ay kayit yu leer tey lépp loo xam ne war nga ko def ci wàllu su bâtiment ñoom ñoo woo ko war a liggéeyal seen bopp alal ji dem seen bopp ñor maintenance bi te Parcelles nag vraiment c'est une commune à construire du ma ne reconstruire parce que rien n'a été construit là-bas mais à construire. donc tey loolu waxuma sax employabilité des jeunes da koy da dañ ciy jàppale lu bari bari na fàll yoo xam ne. tey jii ndawu parcelle ñoo ko war a jël en charge. Mm-hmm. avec une bonne un bon encadrement. tey lii sonal parcelle mooy l' assainissement soo waxee ñu ne non assainissement du suma compétence. et c' est extrêmement faux c' vrai de compétences transférées mais on a vu des communes yoo xam ne où leur maire dafa réussir assainissement demal Dalifort le feu Idrissa dafa réussir l' assainissement Dalifort moo gënoon a graaw ci wàllu ndox mais tey da ko réussir pavé ko boo demee Dalifort c' est comme Et pourtant, c'était l'un des maires les plus farouches au régime. liggéey volonté la ak carnet d'adresse malheureusement le maire qu'on a bi néew fi mais amul carnet d'adresse boobu et c'est ce qui est dommage donc ñun am nañ programme bu leer boo xam ne suñ ci tolloo dinañ ko génne pour suqali parcelle mais ñu jàpp ne li ñuy njëkk attaqué mooy l'assainissement parce que mënoo def pavage te defoo assainissement bu jaar yoon donc assainissement mooy priorité number one parcelle. mais aussi la santé et l' éducation. ce sont deux yoo xam ne tant que réussir ko mënoo ne dangay ngay dimbali askan wi. Mm-hmm. muy léducation et la santé tey yéen soo leen duggoon tey ci biir parcelle wane école parcelle yi dem ci hôpital bi centre de santé sax ak suñu district wane ko di ngeen xam ne ne fii on peut rien avoir de bon moo tax bi ñu koy njëkk a attaqué keroog. li ñu njëkk def mooy wàcc sur le terrain avec les journalistes et faire un reportage sur édifice yi nga xam ne nekkoon na fi yàq na ko aussi bien ci école yi aussi bien ci ci ci ci ci ci hôpital bi centre de santé Abdou et cetera pour mm-hmm. montrer les tares ou les maux avec MAX. Mm-hmm. yi nga xam ne parcelle mu ngi koy dund. Mm-hmm. créé ñu fi dara bañu ñu nit ki parce que Moussa Sy lu mu bon bon bon am na loo xam ne wayam c'est-à-dire turam jaar na parcelle. loolu mënuñu ko dindi mais nag doxalin bi ak li nga xam ne ñu ngi koy dund tey la ñuy xeex vraiment honnêtement ñun nit soxlaa ñu ko mais li nga xam ne ñu ngi koy dund tey ji au parcelle pendant de années moi depuis que je suis conseil municipal et avant parcelle rien ne bouge rien ne change au contraire li ñu amoon yëpp yàqu na que rien n'a été réalisé. d'accord donc nag yoon la Mamadou Fall ñu taxaw nag taxawaay. taxawaay bi te xam naa ne yow ñi di nga ñu ci parce que ni ma lay déggee ku bëgg lu baax nga te di nga ñu ci fekk incha allah. Mm-hmm. merci beaucoup Mamadou Guèye trois moo ñu dese lañ lay joxe rek nga nga tàggatoo joxe sa mot de la fin. vraiment di kontaan ci émission bi déroulement bi parce que aussi baaxoon na aussi ñu wan ne askanu parcelle ñun en réalité c'est pas l'homme ou le en tant qu'homme qui nous intéresse mais c'est le maire qui aujourd'hui on lui a donné plein pouvoir on lui a donné un budget conséquent et tey ji il n'arrive à absolument rien faire pour les parcelles loolu la bu kenn yaakaar ne dañu bañ nit fii bañu ni nit dañoo xam ne rek bu ñu continuer nii vraiment dinañ gën a lor suñu askan te bu ñu continuer aussi di topp politique yi parti politique yi bu ñu continuer aussi di topp nit ñi politique au Sénégal ñu kenn suñu bopp la ñuy nax il faut que tey nit ñi ñu am conscience boobu te ñu ngi koy liggéey ci askan bi yow bokkoo benn man APR laa bokk su ma la dëgg ñun ci ñiy jàppale président Macky Sall la parcelle ay ndomb tànk laa fa yor mais bi ma xamee ne xam na ne politique dañuy jël koo xam ne amul benn njariñ ci askan bi jiital ko te looloo ñu dal ci mairie yi ki ñuy jiital du en réalité ki nga xam ne moom la askan wi di tànn heureusement que tey ñu ngi koy changé avec le suffrage direct. Mhm. parce que 76 par exemple boo ñun 75 conseils ñooy dugg tànn maire. Mhm. or il se trouvait que maire boobu du ñooñu la nit ñi bëgg. du ñooñu la njëkk bind fal. d'accord tey ci li nga xam ne moo am maire yu bari ñu toog bilan wu Khalifa Sall moo tax ñu toogaat. merci beaucoup Guèye. donc li ñuy wax rek mooy que ñaanal. ñëpp wax leen ne nag nañu gën a conscientiser nit ñi. waaw pour que élection yi jëm. bu kenn toog di réccu mhm. mooy lan mooy que faire un bon choix ndaw ñi daal yéen a yor seen i carte a xam ki baax si yéen ak ki baaxul si yéen du Fall tàggatoo voilà li may tëjee mooy sant Mamadou Gueye wax na bilaam wax programme am samp ndëndam <coughs> ndaw la mais osé na quoi mm-hmm. Mm-hmm. di ko remercier bu baax ci ñëw bi mu ñëw fii di wax ni nag ñu ngi lay gërëm ci wuy bi fii fii moom mm-hmm. gars yi ñaare koo fi koo fi dig mu war a ñëw rek xel mi du dal am nga courage du ñëw fekk suñu dañ lay jaajëfal ci loolu di nuyu ñëpp rek rawatina suñu technicien bi ak Sylvie Mor di nuyu sama sëriñ bi sëñ Laat Say Mbàkke fële ca Touba euh, Mamadou Joxa Sané ca ministre de l'intérieur jaa ngeen jëf ba beneen mercredi merci Modou Fall may gërëm bu baax euh, Mamadou Guèye euh, l'original président mouvement génération originale euh, merci beaucoup d'être là monsieur Guèye merci beaucoup gërëm nañ la bu baax di gërëm mboolee mbokk déglukat ñu doon bàyyi xel jamono ji di gërëm Adama ci technique bi ñooy dig daje mercredi même heure même fréquence beneen thème ak beneen invité